Euh, salaamaaleykum mbokk internetu Sénégal yi tey ñu ngi seet si docteur Bakary Samb nekk spécialiste des questions d'islam et de religion tey ñu ngi seet si ko pour waxtaan si question suul yi nga xam ne ça concerne la sous-région et autres par rapport monsieur Samb actualité oblige boo xoolee temps yi Mali situation bi tàng na trop avec le mouvement contestation yi avec imam euh, Dicko ce genre de choses là na nga mën a analyser instant bi ni situation Mali bi. nu mu demee par rapport contexte politique bi et aussi par rapport présence su jihadiste yi ñi nga xam ne ñuy gën di am force c'est genre ñaari rapport yooyu noonu nga ko mën a analyser politique bi ak par rapport ak islamisation bi waaw euh, jërëjëf si dalal bi euh, ku ne xam ne ni Mali actuellement mi ngi dund situation boo xam ni euh, li ci gën a raglu mooy dafa niroog trop situation bi amoon en 2011 nga xam ni dafa am crise institutionnelle maanaam crise politique bu nekk ca capitale ba ci ko am crise sécuritaire waanaam euh, wàllu ay violence yoo xam ni am na ci bëj gànnaaru dëkk ba ak tamit li nga xam mooy le centre du Mali loolu nekk situation boo xam ni war na mm, attirer attention képp ku nekk sous région bi muy teel li ko waral dañu dem ba nga xam ni réew moomu pouvoir ba fa nekk xale yi ñu ngi koy contester ak jeunes yi ak yeneen mouvement yi fekk na président ba lépp loo xam ni nekkoon na opposition fexe na ba ndërmeel ko lépp loo xam nekkoon na société civile ñàkkal na ko doole li mu dese mooy euh, euh, mbedd ma ak koo xam ni kilifa diine la boo xam moo ne seen kanam li ñu waroon wax yëpp mu ni moom moo leen koy waxal. léegi mu nekk situation bu doy waar imaam di ko tey jàmmaarloom état commencé wul tey def euh, naa bi ma njëkkee daje ak moom c'était en 2009. boobu ca Mali mi ngi woon di contester lu code de la famille bi nga xam ni assemblée nationale wote woon na ko à l'unanimité mu fexe ba ci ay manifestation yu mu defoon feesal dell stade ko ak feneen bi ba nguur gi delluwaat ci ginnaaw ba ku ne xam ne la ci xew donc mu nekk situation bu doy boo xam ni euh, homme religieux la naam waaye con contestation yi mu jiitee c'est pas des contestations religieuses dafa fekk loo xam ni moom la ñëpp di tawat muy wàllu ñàkkum démocratie wàllu ñàkkum bon gouvernance ak yorin réew mu sell ma mu jël ko euh, nekk ca kanam ànd ko ak ñi nga xam ñooy euh, les leaders de l'opposition mu nekk situation bu boo xam ni gis ngeen la ci xaw waa CEDEAO ñëw fa def ay médiation ba mujj conseil de sécurité dugg ci ki nga xam mooy euh, coow loolu ba ku ne xam ne actuellement impasse politique bi nga xam ne ci la Mali toll. Mhm. imam Dicko mu newul contestation islamique politique la mais le fekk boo xoolee temps yëpp. chaque jour mu ngi dem di rencontrer ay ak euh, mun nañ koo wax ay chefs religieux ce genre de choses est-ce que la fekk que chef religieux yooyu noonu bokk ci combat boobu noonu du am benn impact négatif par rapport ak dialogue bu CEDEAO bëggoon a euh, woote. non il faut nga xam lan moo xewoon Mali à partir 2012 2013 Imam diko bi nga xamee ni IBK nga xam mooy président tey mi ngi bëgg falu moom ñi ko jàppale woon ci la bokk moom ak euh, le shérif de Nioro bi ñu naan Cheikh Bouye Aïdara. nga xam ni moom euh, mi ngi bokk ci Tijaaniya Hamalis nga xam mooy chef de Nioro Nioro du Sahel ñoom ñoo ko jàppale woon formé benn coalition boo xam mat na 200 mouvements islamiques tudde ko coalition Sebati 2012 bi nga xamee ni euh, euh, gagné na élection yooyu xëy na ñàkk lu ñu woon léegi bi ñu gunge ko ci nguur gi imam Dicko am ak ñoom ay relation politique yoo xam ni ku ne xam na nu mu demee ak imam Chérif Bouy Aïdara aussi nga xam ne seex naa ñoom ay des relations dans le domaine des affaires léegi nag xëy na bu ñu demee ba ci biir réeroo am bu ci njëkk mooy ba euh, nga xam ne premier ministre Mbaye Louga Mega jóge na ci nguur gi en deux mille 2019 li ci mujj aussi mooy li xew ba euh, ñoom ñaar ñu lëkkaloo mais ku ne gis nañ fan yi passé euh, imam Dicko dem na seeti Chérif ay dara fekk na boobu jóge nañ ci euh, euh, contestation yi ginnaaw tabaski yi ba nga xam ni mouvement bi commencé na am tuuti jiixi jaaxa seen biir xëy na yeneen c'était pour euh, waxtaan yeneen waxtaan yoo xam ne dina gën a dëggaat seen mouvement mais tey jii fi ñu toll mooy impasse moo am mooy communauté internationale ak CEDEAO dañoo lëkkaloo nii kenn mënta changer président lu mu jaar ci constitution bi ñoom it ñoom ñu ni foog président bi jóg donc impasse na ci Mali ñu xool rek xam fan la contestation yi du mujjee mais li ci ëpp solo mooy euh, leçon bi ñu ci war a jàngee mooy euh, nguur goo xam ni wala bépp nguur wala njiitu réew boo xam ni jóg nga lépp luy opposition nga affaiblir ko lépp luy société civile nga fexe ba ndërmeel ko li ci mujj rek mooy mbedd mi ngay mujj jàkkaar lool te boobu doo am interlocuteur. mais boo gisee ñu jiitee mouvement yooyu noonu seen lan seen appel ñoom lancé wuñ ko juste ci jeunesse su Mali bi mais boo xoolee jeunesse su région bi yëpp la ñu ni est-ce que loolu lu nekk Mali mënut a yoot fii par rapport ak suñu jeunesse bi. waxuma ci Sénégal spécifiquement mais euh, damay wax rek ni euh, li nga xam ni euh, xew na Mali parce que ku ne xam na ni combat bi nga xam bi ñuy mënee ñoom Dicko ak ñeneen yi bis bu ñu paree ci IBK dégage li ciy tegu kon xam na ko mooy dafa nekk ci ay soldats jóge bitim réew ñu mel ni France wala ñeneen ci ñooñu la ñuy jublu donc loolu dafa nekk ci benn contexte boo xam ni fekk la jeunesse africaine ak dans la sous-région contestation euh, euh, euh, présence militaire française contestation li nga xam ni moom la ñu tuddee les chefs d'État yoo xam ni xëy na dañoo nekk soumis à la France et donc loolu c'est un mouvement général boo xam ni xëy na yaa a un vent y a quelque chose un un courant généralisé boo xam ni mun na dab yeneen dëkk yoo xam ne mel ni Burkina Sénégal wala Côte d'Ivoire wala yeneen dëkk. effectivement benn mu mun na li dal Sénégal mun na dal Burkina mais boo xoolee ne même lu situation boo nga xam ne boobu moo nekk Mali. presque bu nañ ne boobu moo nekk euh, Burkina peut-être bu Mali bi lii moom dañ gën a médiatiser ce genre de choses mais kaw Burkina bi aussi beneen problème la waaw ci am mooy euh, euh, ku nekk jàppoon na à partir de 2012 ni épicentre bi mooy Mali nga xam ni yenn mouvement terroriste ñoo fa nekkoon Al-Qaïda ak mii ak euh, mouvement de libération du Massina bi nga xam ne à partir de 2016 ak yeneen mouvement yoo xam ne ñoo nekkoon foofu tey et puis l'État islamique au Grand Sahara tey mbir mi weesu na Mali dugg na Burkina Faso bu yàgg soo demee ci dëkk yu mel ni Djibo wala nga dem ci. province de Soum wala Oudalan wala yeneen province yi loolu ma nga fa tey même ba ci province de Kompienga nga xam ne mooy euh, ca euh, penku euh, Ouagadougou tey euh, mbir mi yaakaar nañ sax mën na weesu Burkina Faso parce que ku ne xam na ni Burkina Faso du pour ñoom objectif final lañu fay war a jaar pour jàll ku ne xam na tey euh, crainte yi nga xam ne am na ci euh, li tudd le nord du Togo wala Bénin wala même Ghana donc tey mu nekk situation bu inquiétante nga xam ni groupe yi léegi doylootuñu rek nekk dans le Sahel mais l'Afrique côtière daf la intéressé ba nga xam ni bëgg nañu àgg ci peggu géej gi mun a jot ci li nga xam mooy trafic de drogue wala trafic arme bu ko defee ñu mën a gën a déstabiliser déstabiliser la région